bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain maa ngi tàmbalee sama kàddu ci turu sunu boroom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla mii boroom bindéef yi di julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci ñi yàlla yónn ci mbindéef yi julli googu ak sëlmal googu na ba ci ay ñoñam ak i saxaabaam mboolem seen ginnaaw loolu ñoo gën yu mbokk yépp nu yób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa nu am mbégte ñëwaat ak yéen ci xasidu xasida gi wala bayit yi wala xitaa bi sëñ bi tënkee laylatu balsasin bishrun guddik balsas balsas mooy junni at ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar guddi googu daal mbégte la moom lañ tënkee bayit yii sëriñ bi mi ko way ci baxru rajas sëriñ bi mi ko wayee njaareem xasiide gi fukki bayit la ak ñaar moo tolloog xarafi laa ilaha illa allah waaye moo tolloog xarafi muhammadun rasulullah xasida gi gënul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéetal yàlla delloo yàlla njukkal waaye tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ba noppi nag di delloo yonent bi njukkal di wax yi ko may te jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon xasiida gi bi ngi noonu xasiida taxaddasu bi ne at taxaddasu bi nixmati la wa amma bi nixmati rabbika fa xadis te li ëpp ci xasiida yi ginnaaw géej gi bokk na ci xasiida ginnaaw géej gi bokk na ci ca la ko tax a jóg sant yàlla ci tudd xéwal yi mu ko def waaye bokk na ci wéetal yàlla kon xasida moo tàmbale ci li xayri kulli walidin wa walat xaadal ula du xidamin lam yàlla mi aji njëkk te jurul kenn wommat na ak kawe jox ko ki gën ci ku jure ak kuñ jur ki gën ci ki jure ak kuñ jur mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku am waajur yonent bi la gën képp kuñ képp kuy doom yonent bi moo la gën sëñ bi nee na bëgg gi ma bëgg dëgg bëgg gi ma bëgg yàlla ak bañ nar moo wa mat sama bind jëme ko ci sixaahu sanat ci sanat yu wér yi mhm. sëñ Tuubaa lépp lu mu bind rek danga ko fekk ci sixaahu sanat benn muy mantooxu alxuraan walla muy mafhumu alxuraan wala muy mantuuqu xadis wala muy mafhumu xadis mbindum Sëñ Tuubaa génnul yooyu daara daara génnul génnul loolu mhm, mën a génnul loolu mhm. kon mu ngi noonu sëriñ bi nee na liggéeyal gi may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa liggéey bii may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bëgg alxasjat taxul bëgg ñu may ma euh, or wala jamaa taxul de alxasjadu mooy addahabu mooy or wala nga ne aljawharu kulluhu kaddur wal yaqut wala nga ne mooy gànjar yëpp rek or ak euh, jamaak yooyu yëpp ci alxas jat lay bokk kon sëñ Tuubaa nee na liggéey gii may liggéeyal yont bi bëgg ñu may may or wala ñu may may jamaa walla ñu may ma gànjar yooyu taxul de man daal li tax may liggéey may liggéeyal yont bi sallallahu alayhi wa sallam li tax sama liggéey bi li waral sama xidma bi mooy sopp ki nga xam ne moom lañ def muy leeruk sujjóotkat yépp hmm. muy leeruk sujjóotkat yépp man daal liggéey bi may def yépp sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi nga xam ne mooy nuuru sujjadi moo ko waral moo tax mu ne hadaaniyal akramu yowmal ahadi wa laysa li siwaahu min multaxidi yàlla mi akram iqra bismi rabbika alladi xalaqa xalaqal insaan min xalaq iqra wa rabbuka al akram yàlla moom moo di akram gindi ma ci bisu dibéer mooy dimanche mhm. ci bisu dimanche tey nag man aw ma beneen weeruwaay bu dul yàlla yàlla mooy sama weeruwaay yàlla mi akram gindi na ma ci bisu dimanche waaye aw ma beneen weeruwaay bu mooy weeru ku dul moom al multaxit mooy al maljau allati yaljahu ili insaan mooy ki nga xam ne ci moom ngay wéeru sëñ Tuubaa daa bëgg wax ne daa gëm yàlla ba amul benn weeruwaay udul yàlla amul benn sukkandiku budul yàlla baatu multaxat bi ñëw na ci alxaan qul inni lan yujirni min allaahi ahadun wala na ajida min dunihi multaxat kon ci moom rek ci moom yàlla rek lay wéeru ci yàlla képp rek dong mooy wéeruwaayam amul benn wéeruwaay mhm. mu teg ceene tawféexi sun borom sun borom mooy aji màgg tawféexam mooy wammat sama xol tawfiquhu jalla yaxuudu xaladi wali xaada muxjala tajalludi alxalat mooy albaalu wan nafs mooy alxalat kon tawféexi sun borom mooy wammat sama xol mooy wammat sama xel mooy wammat sama conscience te nag taxaddut jubluwoo man Sëñ Tuubaa mooy lompañ mooy xaslun mooy naqsun lompañ mm, jubluwuma wala wala xaa maa ngi koy jaawal taxaddut wala xaada muxjirat tajallut tajallut kon jàqare ak tiis ak luy waral yooyu yëpp jublu ma man sëñ Tuubaa mu teg ci ne barakatul maax yi tasiidu madad yi barkeb yonent bi nga xam ne mooy far kéefër mooy far bàkkaar moo far lëndëm mooy dellu sama madat sama tëbb sama ndimbal te nag sama taxaddut sama woñsu sama naqs dàq nañ ko mu jëm ci keneen ku dul man lompañ yooy yooyu yëpp dàq nañ ko mu jëm ak wàññeeku yooyu yëpp dàq nañ ko mu jëm ci keneen ku man yonent bi nga xam ne mooy muntaxaa te mooy faydul ahad mooy mbàmmlaanu yàlla mi kenn yonent boobu di muntaxaa jotale naa ko am mbégte te nag moom ma aar ci képp kuy wedd yàlla al mulhid mooy ki nga xam ne day wedd yàlla kon lil muntaxa awsaltu faydal ahadi lahu busaaratan xamat an mulhidi saaxan nabiyu kullama lam yuxmadi li xeyri naxwi bi sawqi samadi yonent bi nga xam ne mooy annabi màng na lépp luñ santul lépp luñ gërëmul mànga na ko mu jëm ci keneen ku man te loolu nag yonent mi ngi ko defee bi sawqi sabari ci màngoog yàlla bi nga xam ne mooy asamat yàlla bi nga xam ne ñoom moom la ñëpp jublu ci aajo yàlla bi nga xam ne mooy kilifa te ñëpp di ko jublu ci ajo ci màngoog suñ borom googu la ko yonent bi la màngee lépp luñ santul mu jëm ci keneen ku man ah kon nag xanaa sant ci des moo tax mu ne shakartu sal arshi ala muhammadin assaabiqil marfuuxi doona amadi sant naa yàlla mi borom aras ci yonent bi nga xam ne mooy muhammad yonent bi nga xam ne moo jiitu ñëpp lu baax lu ne moo ci jiitu lu baax lu ne moo ci raw lu baax lu ne moo ci number one lu baax wu ne moo ci première yonent booba di assaabiq waaw waaw nga xam ne leeram lay sun borom njëkk a bind yonent boobu moom laay maa ngi sant sama borom ci yonent boobu mhm. mooy ki ñu yëkkati moo féete kaw ñépp allahu akbar baana li kulli man lam yaku daa tamarrudi sabqu nabii wa rasul lil mufradi képp ku dul terroriste képp ku dul rebelle kuy weddi dëgg di bañ dëgg ku la kooku rekk jiitu yonent bi jiitu ki yàlla yónni tey càppaacooli tey kenn wéet fam nekk ci maqaama ku dul ko ku ku ku fetteerlu rek rawu bi fes na ci yow moo tax sakartu sal kursi yi doona wabadi ala abil xaasimi no nuural ubbadi moo tax maa ngi sant borom kursi maa ngi sant borom kursi yi ci lu dul wabat al wabadu mooy suu suu xaalin wa shiddati xaysin ci lu dul mm, suul xaal ak dund gu naqari kon maa ngi sant yàlla maa ngi sant borom aras ci loolu maa ngi sant borom aras di delloo yàlla njukkal ci bàyyi xaasim mii ala abil xaasim loolu dàkkantalu yonent bi sallallahu moom la yonent bi dañ ko daan dàkkantale abul xaasim te mooy doomam ju mag mhm. kon indi na ci ay yonent bi ci xasida gi wala ci bay waaye indi na ci kunyatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne nag mooy bàyyi xaasim waaye mooy leeru jaamukatu yàlla yëpp moo tax mu ne ridwaanu dil arsi allati lam yalidi ala jumuhi xayri kulli waladi ngërëmal yàlla mii borom aras te jurul kenn ah yàlla nekk ci nga xam ne moo dajale mboolem lu baax yépp te mooy gën gi doom kon gis nga xasee dëgg mi ngi noonu wéetal yàlla la feese dal gis nga bi mu indee euh, xaadal ola doo xidamin lam yërit mu wane ne yonte sun borom moo njëkk njëkk lépp wax wa xadimun maa lahu bidaaya yàlla moo njëkk lépp te amul tàmbaluwaay te moo fi mujj lépp amul disuwaay wax wa xadimun maa lahu bidaaya wasoo baqaayin maa lahu nihaaya kon yàlla mooy borom xidam gi mooy borom ataliyat gi nga xam ne yàlla euh, amul fu tàmbali ak ak gi amul tàmbali waay waaw allahu azaliyun allahu xaddimun mooy borom njëkk gi nga xam dafa am te amam nga amul fu mu tàmbalee te amul fu yam kooku mooy alxadiim mooy sol kon gis nga mi ngi wetal yàlla di ko jox sifaat yi nga xam ne ci al ci sifaatu salbiya la bokk sifaat yi nga xam ne euh, day dàq lépp lu manqué lépp lu yellul ci suñ boroom ci sifaatu salbiya la bokk moom alxidamu ak baqaaw moo njëkk te amul tàmbaluwaay moo dappetu moo sax te amul fu muy yem waay loolu moo indi al awwal moo indi al euh, axir nga xam ne yàlla amul tàmbali waay lu ne suñ borom moo ko njëkk mhm. kon xam nga ne loolu tawxiid la di melal yàlla ne mooy aji njëkk ji te yàlla nag njëkkam gi ah, ah, ah am na ay preuve de suma wujudu suma wujubu xidami rahmaani burhaanahu inda zawil zawil adhaani law lam yakun jàlla xadima laftaxar li muxdisin li kawnihi xalqan saxar ba nim jeexee waaw li lay tegtal jiitu suñu borom subhaanahu wa taala te dara jiitu ko mooy bu fekkoon ne am na ku ko jiitu kooke war naa am ku ko jiitu muy nekk lu ñuy wéy luy am fu mu yem tasalsul lay tasalsul lay doon te loolu amul kon liy tegtale jiitu suñu borom te dara jiitu ko mooy bu fekkoon am na ku ko jiitu kookee war naa am ku ko jiitu muy nekk luy wéy te du am fu mu yem. Mhm. kon mi ngi melal suñ borom ne sun borom jur amul doom waxaalu ittaxasa rahmaani wahdan waaw waaw ñu tuumaal yàlla na am na doom waaye sëñ bi nee na moom lam jëlit yàlla jurul kenn mhm. kon ma ngay tawxiid xul huwa allahu ahad allahu samad lam yëlit Mm-hmm. kon lam yelit ma nga mm-hmm. kon sëñ bi nee yàlla moo jëkk lépp te amul tàmbaluwaay waaye yàlla mm, jurul kenn ma ngay melal yàlla na yàlla mooy al akram yàlla mooy ki gën a mooy akram al akram turu yàlla la ñëw na ci alxuraan ci suratul alaq mhm. kon mi ngi noonu kon yàlla mooy aji njëkk te njëkkam amul fu muy tàmbale amul fu muy yam waaye yàlla jurul kenn waaye boo ne jurul kenn it dañ ci dëggaane kenn euh, kenn juru ko waaye sëñ sëñ Tuubaa na yàlla mooy al akram mhm. al akram tur wu yéeme la tur wu la mooy ki ëpp lu muy joxe aw yiw ki ëpp lu muy Euh, maye mboolem jikko yu rafet yu tedd yëpp daane ci moom te képp kum doy dal kenn mënu laa taral waaye képp kum teral kenn mënu laa doy dal waaye gis nga yemul foofa de sëñ bi mi ngi melal suñ boroom ci abyaat yii ne yàlla mooy eh, tawfiqoo jàlla yàlla kawe na lépp lu mu mën a doon manqué na eh, mboolem melo yu manqué yëpp sun borom ëppante na ak loolu mu ngi mel ne yàlla ne mooy yàlla mooy al ahad lil muntaxa awsaltu faydal ahad yàlla mooy al ahad mhm, mooy kenn qul huwa allahu ahad gis nga ci al ahad ci asmaullahi al husna yi la bokk ñëw na ci suratul ixlaas kon gis nga euh, euh, bayit yii abyaat yii daa bari euh, ay baat yu nekk li xalaas ñëw ci danañ ci danaa ci ñëw sax incha allah al ahad yàlla mooy ahad mooy kenn ku wéet ci kennam gi mhm. al ahad ñëw na ci alxuraan benn yoon xul huwa allahu ahad te mi ngi ñëw ci suratul ixlaas te wax naa la abyaat yii laylatu bal sa seen bisrun dafa bari ay baat yu ci ñëw te baat yooyu ña ngi ca suratul ixlaas lam yelit baat boobu ñëw na ci bayit yii ñëw na ci ñaari yoon te lam yelit ñëw na ci suratul ixlaas te boo xoolee lam yelit xul huwalla ahad allahu samad lam yelit dalay jox 114 tolloog tur yàlla wi di jaamihu mooy Euh, saar alxaan yi téeméer la ak fukk ak ñeent waaye axat gis nga xul walla axat ñëw na ci lixlaas waaye ñëw na ci bay di asamat moom itam ñëw na ci kon al axat tur yàlla wax na dafay tegtale ci axadiyatullaahi axadiyatullaahi yàlla moo wéet ci melow yu màgg ya melaw yu tedd ya moom la ñuy màndargaal ci alxasamatu wal kibriyaw ak jamaalam yàlla kenn la ci jëmmam amul kuñ koy nuróoleel kenn la ci meloom amul ndend kenn la ci ay amul kuñ koy bokkaale amul ku koy dimbali kenn la ci uluhiyatam allahu akbar sëñ bi baat yi mu indi day am doole lool baat yi mu indi dafay eh, yéeme lool kon gis nga yëpp tawxiid ju mat sëkk la ju sëñ bi di indi ci xasiida gi di laylatu barsasin wax naa la xasiida yi ginnaaw géej gi ak xasiida géej gi ak xasiida yi jiitu géej gi xasiida goo ca goo ci dem mboolem euh, tawxiid ju mat sëkk da ci ne waaye sëñ bi nee na maa ngi sant borom aras gis nga kon mi ngi melal yàlla ne mooy borom aras mi ngi melal yàlla yàlla mooy borom kursi yàlla mooy borom aras yàlla mooy borom kursi yu wasiha kursi yu samawaati wal ard kon yàlla mooy borom kursi yu boobu mhm. yooyu yëpp tawxiid ju mat sëkk la tawxiid yu leer naññ la tawxiid yu fees dell la sëñ bi di ko def ci euh, xasiida gi nga xam ne lu yéeme yéeme la kon xasiida gi xasiida ak tawxiid la tawxiid gu sell tawxiid gu leer nàññi tawxiid ju fés waaye muy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa ci bayit yi sëñ bi mi ngi melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moo mooy ki gën ci ki jure ak kiñ jur képp ko am ndey am baay yonent bi moo la gën képp ko xam ne dañaa dangaa dangaa jure am ay doom bi moo la gën bi mooy nooru sujjat ñi su jotal yàlla yëpp yonent bi mooy seen leer yonent bi mooy almaahi mooy ki far bàkkaar mooy kii far yéefar mooy ki far lëndëm mooy kii yàlla tànn mooy kii yàlla déey mooy Muhammad nga xam ne mboolem jikko yu mat yu baax yu tedd yëpp dafa nekk ci moom mooy première mooy number one mooy mooy lu baax lu ne yonent bi moo ci jiitu yonent bi moo gën a kawe ñëpp yonent bi nga xam ne annabi la ak rasul la mufrad la yonent boobu ak rawam ak jiitoom fes na ku fees na ñeel képp koo xam ne euh, amuk feteerlu yonent boobu muy sëñ Tuubaa di tàgg ci bayit yii mooy abul xaasim mooy bàyyi xaasim kun kun la mooy leer ñi jaamu yàlla ñëpp yonent bi moo gën euh, doom yëpp mm-hmm. kon gis nga xasiida gi xasiida tàgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida wéetal yàlla la waaye euh, xasida delloo yàlla njukkal di tudd yi ko yàlla may tudd na ci alkursi yi tudd na ci alxars gis nga wasiha kursi yu samaawaat wal ardi kursi yi yaatu na ëpp na asamaan ak suuf fopp waaye kursi bii ni mu yaatoo xaras ni mu yaatoo asamaan suuf noonu la ko noonu noonu la ko xaras gën a yaatoo xaras sun borom mi ngi koy melal ne fa taxaala allahu malikul xaq la ilaha illa huwa rabbul xartil karim waaye da koy melal feneen sun borom mooy borom aras ju màgg ji sunu borom mooy borom xares ju tedd ji sol xarsil majid rabbul xarsil karim rabbul xarsil azim bi gën a màgg mbindeef bi gën a euh, kawe moom xalas ci xaras sun sun borom ci la def al istiwaaw arrahmaanu xalal xars istawe xaras mooy mbindeef euh, mbindeef yi moo la ci gën a kawe la ci gën a màgg waaw kon mi ngi noonu yépp taw ju mat sëkk sëñ bi nag nee na isaa katabtu ihtasa xarsal baax yi wa sabaxat malaayikatu baax sëñ Tuubaa nee na su ma bindee xaras day jaayu jaayug màggal waaw jaayug màggal ixtisaasu tanzimin wa takrimin mbindam sëñ Tuubaa day yëngal aras yëngalug màggal ak yëngalug teral malaaka yépp sàbbaal sëñ Tuubaa am na ci xasidaam yum bind yoo xam ne ni ña ko bind ci aras ña ngi ko denc foofu busraana jamsusuna jamsusuna busraana sëñ bi nee na ña ngi ko bind ci aras te euh, malaaka ya gàddu aras dañoo mokkal xasida yooyu allahu akbar kon daal maa ngi bëgg a guddal mën naa yem mën nañoo yem fii rek tey ci xasida gi nga xam ne mooy laylatu balsachin bisurun guddig daal balsasin mbégte la kon bokk na ci sëñ bi di sante suñ borom ci xaside gii ak eh, eh, nee na yonent bi wala sun borom moo ko gindi amul benn wéeruwaay bu dul yàlla tawfiix sun borom mooy wommat xelam sun borom da koy dolli ak tëbb Mhm. lépp luñ santul luñ gërëmul yant bi dàq na ko mu jëm ci keneen ku dul moom sëñ Tuubaa kon yépp yu muy sante suñu borom la xasiida gii nag laylatu balsasin bisudun am na benn doomi sëñ Tuubaa joo xam ne nii mm, bañ ne suba lay gane àddina ci la sëñ Tuubaa defar xasiida gii doon anis ak ñëw ak ñëwam di wax ne damay waaj a am gan gu tedd na ma ko ñëpp terle gudd gi jiitu ak gan ak àddinaam la bind laylatu balsasin bishrun tur doomi sëñ Tuubaa jooju sax sëñ bi am na fu mu ko xote euh, ci biir xasida gi damay ba su ma bañu soona guddal danaa koy ni tur doomi sëñ Tuubaa jooju nga xam ne guddi gim gu jiitu gane ak ci la sëñ bi defar xasida gi di wane ne guddi balsasin googu bis bégte la ci moom ah sax sëñ bi da koo xote ci biir laylatu balsasin bishrun te nag junju doy na kon mën nañoo yem foofu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.